stratégie. oui jeunesse jeunesse sport culture culture nga ah. dénk benn jigéen. Ah. fan nga kaa teg. foo kaa bi ñu doon wax sànq nga jox ko jigéen. waaw mais parce que xam nga ni que jigéen yàlla may na ko est-ce xam nga jigéen a ëpp doole góor. et boo xoolee dans l'ordre même protocolaire après le président de la république le premier ministre affaires étrangères jigéen a fa ne. am telling you mais Pape jigéen la yàlla may lu mayul kenn lu tëral dëgg imaginez ces braves dames la hmm. ka si nekk yor boroom kër. te bu yéggee këram day topp ci ginnaaw borom kër. famille. famille. ñu dénk gérer famille solidarité ñu dénk ko may mun a. waaw Dieye nu ngi kaa nuyu xarit boobu nga boole ñooñu ñëpp saay ka si nekk war a gérer këram. gérer ay doomam bu dee dafa am sët mu gérer ay sëtam bu dee dafa am ay doom mu gérer leen gérer ay jarbaatam gérer ay mbokkam gérer ay góoram gérer borom këram. Hmm. ak xaritu borom kër gi xaritu borom kër gi kër gi war a neex mu war a gérer nag fonction bi ay département war a gérer ay góor ak ay jigéen ak ay famille xanaa du yàlla may ñi foofu la mbir mu war a nekk faut ñuy élever le niveau di def de sorte que nit ñi war a mën a comprendre l' essentiel l' essentiel c' est quoi. Hmm. une tâche dévouée dédiée kaka yore am na sens de responsabilité bi ñu bàyyi ko mu doxal ñu ñaanal kese. kon dañu comprendre ñoom féministes yi pour man nañ nañ ma baal ils n'ont rien compris moi quand les gens parlent de nombre j'ai un problème je dis mais attends on parle de compétitivité et de compétence nom de Dieu on ne parle pas d'égalité moo tax gëmuma cette histoire de parité là ah. bi ñu fi indi à un moment parce que parité parité mu am diggante góor ak jigéen xam nga tax yàlla dafa may jigéen lu mayul góor may góor lu mayul jigéen kasi nekk mu am lu la jox xanaa kooko daq équilibre ñëpp waaw <laughs> xanaa kooko <laughs> yàlla moo may góor mu mun am ñeenti jabar ci diine islam xañ jigéen ñaari borom kër <laughs> benn ak lay am bu ko defee ñun bigamie kookoy suñu borom tant que nag les gens ne fonctionnent pas suivant la réalité du cosmos de Dieu hmm. dañuy juum moo tax seytaan moo ñu dugal ci laïcité moo ñu dugal ci ay politique yu kenn xamul alors que yàlla def na ne jigéen bi li mu mérité soxlawul nga daan parité. poste bi daf ko mérité dañ ko jox ku góor ki moo ko mérité ñu jox ko góor ki et on avance. Hmm. donc oh. a fait on a la possibilité de nous en tirer men de nous en tirer alors beneen visite ginnaaw bu ñu jógee ci ñu annoncé ci le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye beneen le premier ministre. building administratif. Ah. boo xam te ne rénovation bi fa mu tàmbalee 17 milliards on parle maintenant de milliards de francs CFA. moom kay benn jamono doon doon nañ wax sax plus de 50 milliards. man ma tiit am na sax benn moment naan dañ avenant avenant. avenant avenant yi moom laa wax avenant yi moo ñu yóbbu foofu nekk à niveau insoupçonné bon ñu ngay nuy suñu baay bi Bamba Ndiaye. Bamba SA. Mm-hmm. bi ñu ko dénkoon. Euh, xam nga nag liggéey moom bu la ko dékkee da def. sa liggéey rek l' essentiel euh, na liggéey bi jaar yoon et puis voilà tout le monde est pépère tout le monde est mm. mooy ñu ne defar nañu building administratif dawal diir bu ndaw. ñu ne am na incendie. ñu ne incendie boobu foog ñu defaat ci benn sept milliards. Mm. j'ai jamais compris ça ma ne que qu'est-ce que ça veut dire. Ah, après ak li ci jot a fi. ñu am ay. sphères ministérielles waaw et en même temps nga dem créer ay sphères ministérielles jam ñaajo ña fay liggéeyee ngay kaas non Pape Ousmane gis nga ja gis nga régime bi APR Benno Bokk Yaakaar bu leen nguur gi toppee dëgg. Hmm. but bu but point par point ragal naa ni saa dana compliqué trop sax moo tax mënuñu woon lu dul créer des conditions d'amnistie. ak leneen ak hmm. leneen. créer on ne sait quoi. signé par si par la sauf que bokk ci. oui oui sauf que sauf que. Hmm. man dama jàpp sax ni président Macky Sall daal dafa mel ni ku ku jël affaire yi tayle dafa tayle ñi mu àndaloon. Hmm. maanaam démerdez-vous débrouillez-vous je m'en fous. kon da ngaa laaj ba keroog bi mu wax naan président booy dem kon ñu bàyyee ki laaj loolu. Oh, kada woon sax koo laajoon loolu <laughs> koo laajoon loolu. ka dawee ci bërëbu liggéeykaay ba gisatuñ ko xamuñ fu mu ne. ah mooy tas ko taskatu xibaar bi rattaché wu ci média public. ah le soleil. te nuy bind waaw. yaa xam dawul de dawal fu mu daw dem. waaw maanaam gisuñu ko laa bëggoon. gisuñu ko waaw ah. yaa xam fan la mën a dem ba duñ ko gis. yow gis nga waa soleil. waaw gis naa ñu. waaw yaa xam mu ngi si dëkk bi yaa xam mënu yaa xam dafa yaa xam du def loolu. Ah. man loolu gëm ma ko ay daw yi non. daw dem fan. ah loolu ma boo dawee fay dem. waaw léegi fay dem laa bëgg. fan nekk fugitif. Hmm. non subhanallah loolu ci ab autorité bi. gis ñu ko ñu ni boobu gaa yaa ngi réclamer seeni koppar yi mu leen war a fay ak yooyu. état état de mooy état ginnaaw état bi moom bi fi mu ngi door a toog. Hmm. installé wu dina xool li ci nekk bu xoolee li ci nekk. Hmm. mais dina mën a régler problème bi. kon laajam ba comprendre nga ko tey. kon ñu koo ñu bàyyeel ça veut dire kooku baa du dal suñu kaw genre wala kooku kan la war a doon. Hmm. ah baa waxtaan nga ak moom baa di nga waxtaan ak moom. <laughs> nguur nag nguur nag saa nguur gi nag ñi fi toog sax moomuñu ko. il faut que les gens comprennent ça. ñi fi ñi falu sax moomuñu nguur gi. donc ñoom mënuñu lu dul teg doxal yoon. et puis yoon nag nekk yoon aussi. mënu leen pendant douze ans. ba pare ba koy def nag ngeen def ko ak li ma gën a métti mooy def ak teeyaayu bakkan. après àndoon noonu ak benn arrogance boo xam ne. ñàkk kersa nit loo mën a tudd. soxor nag moo ma tiitaloon nga boole loolu yëpp léegi nag nga ñëw ba fii tey ñu war a régler compte yi war a xool situation et cetera. ngay siisu di mer ak a jaaxle. ak commencé tàggaate dégg naa sax ñeneen ñi di commencé naan naan Bassirou Diomaye fay Faye boo ko xoolee sax xam ni non non non non. lii am. solo. ci sa mbir moom. Hmm. moo di ne comme président euh, Bassirou Diomaye Faye Diakhar Faye joxe na euh, tracé na ligne bi. mook son premier ministre. waaw premier ministre tàmbali def ay mais loolooy dëgg. Ah. foog mu dem xool def état de lieu xool situation bi xool affaire yi. Ah. xool lu baax lu baaxul lu fi yàqu lu fi yàqul. Hmm. xanaa boo boo ñëwee bees di nga xool fu boo toxoo bees. Hmm. daa xool fu toj nga di xool fu kii. <laughs> defaraat <laughs> ah. fu fu lu ñu ana lu ñu matériel bi fu ku ko jënd ku ko jëndoon fan la ko def fu nga ko kii yomb na. Hmm. ñi yoroon gérer effet expliqué. ku ñu joxoon marché tamit. bu dee àgg na alhamdulilah bu dee àggul nga ñëw wax lu tax àggul. et cetera et cetera. c'est Mm. ah le PM a bien fait et c'est ce qu'il doit faire en plus. Mm. ah oui c'est ce qu'il doit faire ah oui. seen structure publique yi. ah oui yëpp. parce que lettre ba ginnaaw lettre ba jib na. jagleel ko administration. dem xool jub jubal jubbanti. loolu loolay taxawaay bi. Ah. dem taxaw nag xool. observer yaa ngi yéen gis nga yéen direction publique yi ña ko jiite woon ñu ngi tàmbali naan leen mucc nañ ayib ca lañ def yaa ngi koy gis. mucc mucc nañ. ayib si seen liggéey. gis nga ko di ko gis fan ci presse bi. yaa ngi gis ay presse bee ko war a wax dégg naa ngóore di ko wax si suba. waaw bee ko war a wax. ah non pas la presse de dire diw dangam diw ba pare sama mbokk journaliste yi. ñu ah. waxaat ko fii ah, gars am na taxawaay boo xam moo tax l' état du Sénégal dafa war a. Hmm. toppatoo presse sénégalaise gaaw. naka ça fait partie des urgences. Hmm. naka. Hmm. le fonds d' à la place de l' à la à la presse. un écoute de nangam ci alal. comme pour tous les secteurs permettant à des opérateurs un journaliste ou des journalistes ou un groupe de journalistes de se dire les gars on a besoin de millions pour monter un projet de télévision de radio de groupe de presse hmm. on va aller voir l'État du Sénégal il y a la garantie étatique bancable et bancaire nous permettre ñu telle banque lebal ñu xaalis ñu teg suñu projet liggéey fay mais Pape Ousmane loolu moo war am hmm. loolu moo di dëgg tey jii nii sunu classe gi kan moo fi mën a dem ci banque yi ñu lebal la loolu <laughs> ne di nga ci sonn daw ci safa ak marwa def ci loolu ak loolu tu yi ton salaire hmm. wala les revenus que tu as euh, ñu def ko selon ñoom na mu leen intéressé et cetera et cetera hmm. damay wax fii ne la presse état bi daf ci war a taxaw rapidement ñu recadrer def une refonte générale hmm. qui puisse permettre que les uns et les autres nekk à niveau convention yi ñu respecté que saa yi la pour que journalistes yi bañ di dépendre ci Pape Ousmane wala Pape Assane buy ñëw ne la jox naa la nangam jëfal ma lii une. Mm. une yi ñuy jaay looloo ko waral une yi ñuy jaay les gens veulent payer leur salaire. Mm. ils en dépendent pour payer leur salaire. une yi jaay parce que nit ñi jënatuñu journaux yi nit ñi jënatuñu journaux yi parce que journaux yi waxatuñu leen dëgg réseaux sociaux yi ñoo leen di wax dëgg. Mm. réseaux sociaux yi aussi parfois mu bare manipulation donc pour faire de sorte que ñu delluwaat vers l'orthodoxie dans la presse et de la presse. Mm. et pour la presse. Mm. loolu daal di nekk luy transcender wu tas fépp law fépp presse bi bu boobaa information bi moo joxe dana ko vérifier vérifier waat ko. Mm. dootul njëkkante ay scoop dootul njëkkante ci lenn lu dul dox li war a am. bu boobaa information bi nekk ci politique politicienne ou de politicard. day nekk ci information d'utilité publique. publique danay changer. nit ñi gën a mën nekk à niveau. kon vivement ñu jëmmal le code de la presse bi nga xam ne ay décret d'application ci desoon te lijjanti accès à l'information. te lijjanti article 18 boobu newoon ci biir code bi. ah ci wàllu góor jigéen journaliste buy tudd góor jigéen. ah kon ñu du fi neexee. Ah, ah. waaw yàlla ci yàlla musal. waaw kon ñu ngi xaar ah day day um dëkk. ah, ah ñi faluwut waxoon nañu leen ñu yegg ci criminaliser ko. mais c'est ce qu'il faut faire mais nous sommes souverains et indépendants nom de Dieu. pourquoi le blanc refuse que moi je puisse porter euh, ma femme ou ma fille puisse porter le voile parce qu'elle est que moi je puisse être polygame euh, le, le blanc me dit non tu dois pas être polygame et lui il doit être un, ou une lesbienne chez moi je tape sur la table je dis allez vous faire foutre ah. c'est comme ça que ça doit se passer c'est comme ça qu'on se montre fort qu'on régule qu'on travaille qu'on construit une nation et un peuple le peuple Sénégal n'est pas un peuple